ETDR établissement Touba Darou Rahman mbokk yi kër gi ngeen di gis mu nekkoon ci état bu délabré nekkoon ci état bu doy mu amoon lu mu mel ba kenn ñemewu fa woon a dëkk yàlla dogal ñu ko ak waa établissement Touba Darou Rahman ñu xaatim ay contrat war a jublu nag ci réhabilitation boobu kër xoolal ma ni kër gi meloon laataa mu yëg ci ci loxo établissement Touba Darou Rahman mbokk yi du gis ngeen établissement Touba Darou Rahman di yëngu ci wàllum tabax kër bi ñu leen joxee kër gi ni kër gi meloon ak bi ñu paree ci kër gi ni kër gi mujjee mel mu taaru loolu ba wute sax ak na mu meloon mbokk yi nii rek la ko waa ETDR di defee ci liggéey yëpp bu fekkee da nga am sa terrain bëgg am kër gu yees ETDR dina ko defar ba mu baax jox la sa ay caabi bu fekkee ni sa kër aussi moo soxla réhabilitation ETDR ñëw defaral la ko ba mu yemb lépp lu jëm ci wàllu kër muy wàllu carreau plomberie électricité lépp ñoo la koy defal lépp lu ngeen waxtaanee ba juboo ETDR dina la ko defal ñi ngi nekk fii ci Pikine ci technopole bi ci yoonu arène nationale bi villa numéro 406 wala ngeen wooñu ci suñu numéro de téléphone muy le 77 575 50 25 wala 33 824 57 43 ku bëgg ci kër yu dernière génération yi kër yu bakkane yi kër yu noflaay yi tawal gaaw seeti waa ETDR établissement Touba Darou Rahman jërëjëf mbokk yi am mbégte kontante bu baax a baax pour ñu ñuy suivre ci ETDR Média di leen nuyu saa su ne fi ñu leen tàmm di leen nuyu di leen toppal lépp luy làmb lépp luy actualité te bokk ci réew mi rek dañ koy jëli jox ko ñu ñuy suivre dañuy bàyyi xel di wax ngeen wéy di abonné waaye di bës notification bi ngeen di mën di xaar vidéo yi di wàcc en temps réel su ko defee ngeen di ko mën a am saa su ne tey nag ñu ngi fi nga xam te ne bi mooy euh, Touba dëkku Seexul Xadim bi yemook bis bi nga xam te mooy euh, bisu màggal bi nga xam te ci la wootee ni dañ ko santale yàlla euh, bis bi nga xamante ne bi bis bu euh, bu mu fonk la waaye nag ñu ñëw fekk fi ki nga xamante ne bii kat mooy Diam euh, Thierry la grand champion doomu Kayaar bi ñu ngi ko fekk nag ci kër ki nga xamante ne bii mooy sëñ Xaadim borom def gis kenn du ko nattable ci réew mi waaye kenn du ko laaj tamit ci biir réew ak ci bitim réew moom sañ Xaadim ñu fekk nag fi nga xamante ne bii mooy kër sëñ Xaadim moom Diam Thierry dinañ ko nuyu balaa ñuy ñëw ci sëñ Xaadim nuyu Diam Thierry dañ koy bàyyi mu nuyoog ñuy suivre su ko defee ñu mën a dugg ci wax waaw maa lay fay maa lay ziar bu wér sant Serigne Touba alhamdulilah waaw ñu ngi si jàmm bu baax a baax waaw ginnaaw bi sant yàlla ju si yoon sant suñu ñaari waajur di sant kilifa diine ak kilifa aada yëpp waaw di bege Serigne Xaadim def gis mi nga xam tey maa ngi këram muy sama Serigne di sama lépp di bege pap Demba bu ñu naan ko Boy Kayar ñu ngi koy ziarat bu baax a baax. di leen ñaanal jàmm ak di nuyu waa tund jëndër bi yëpp waa bawal bi Touba gi ma nekk muy sama kër yaay sama kër papa yëpp sama gore yëpp maa lay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu waa Kajoor tund Mbakol bi di nuyu waa Bamba Dinga bu baax a baax a baax di nuyu waa Sare Kañe di nuyu waa War Jaxal bu baax a baax a baax di nuyu kulli zone boo xam ne ñu ngi jàppale Diam Terry rek ak fu supporter Diam Terry nekk rek maa ngi koy béggee bu baax baax a baax di leen ziar bu wér. waaw maa ngi lay magal waaw maa ngi neex trop trop trop ndax depuis depuis ba ñë jëmmi ba ñëwee ba léegi lépp a jolli moom lépp a neex ah di ñaa yàlla daal suñu xam def gis yàlla yokk ko ba yokk parce que wax dëgg yàlla maanaam tur ko ay waajuram ay waajuram tuddee yaakaar naa ay waajuram rëccu rëccu wuñ ko ndax mu ngi koy jëfe mu ngi koy doxee mu ngi koy waxee tey ku ñëw si këram di nga xam ni maanaam li sëñ bi waxoon ci màggal def def na sax def na sax ko raw. yalla xam nako parce que mom dalay wo kay dalal ma yëkkat lim am jox la nga ñib mu yëkkati paas jox la loolu yombul jël katanam ak doole ak lepp bokk kook yow te yaakaar naa trondoom loolu loolu loolu ñaan kon manam mom xolib set nañ ci mom di ñaanal jamm dal ñun mom day sunu sëriñ di sunu way di sunu lepp fété woon ñun dinu jàppale nak ci biir activité waaw kon ñun mënuñu wax ci mom sax bari di ko ñaan yàlla daal ba pare tamit mu am xam-xam pare yéenuñu ko di defal lépp nag boo gisee bu ñu amee adversaire wala ñu am combat duñ tiit ci dara jëmmam moo tax moo tax waa sant Serigne Touba bu baaxam suñ xam ci kanamam laa laatar bi wala làmb ci kanamam laatar ki ngeen mbapat ci kanamam kaara nekkoon waaw ci kanam laa defee lépp ma xam ko baax nag bu baax a baax parce bi ma koy xam dëgg dëgg dëgg dëgg bi bi gëna yéme sax mom dëgg dëgg dëgg bi bi gëna yéme bo bo bo booba man man na mën na ne la woon ñun ay tank la won waaw ah, kon ñun ñun xam nañ ko dañ ko xam bu baax biñ koy xam ba di ko top ba du yag na boobu ay xalé lan man mi nga gis ni tay yalla boole ñu yor na yor na mbeur ñu ñu day ci papa mu daan waaw yor na mbeuram ñu day ci lamb mbeuram daan ma yaakaar na ni tay bo ne Kayar ni Aline ni mes mes ñu naa ko Aline Gendar ñëpp a ko xam daana ma mbapat te boobu sëñ Xaadim bi moo ko yor te boobu moom mi boobu moom mu ngi kaar nekk lu ndaw waaw kon xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax yàgg na euh, xam nga ne solo muy sa diggante ak euh, rek. di dagan borom magal gi manam wa santa Serigne Touba bu baax di dagan borom magal gi borom bis bu tedd bi tay diko dagan dagaan bu baaxa baaxa baax diko wax bis bi ni ko gars yi bu jour ba yalla yomb nañu yomb lool ci ñun ñu ci ndamul sedd guy ay talibé lan ay bayfal lan sun lepp ci mom lañ ko wéeg tay yi sama dafa dafa mënul ñak sax comme ñi wax ci émission ni wa yalla xamné tay ji mom da ko seen khadim di magal ba mu ànd ak sap. magal bu sap mais nag suñu xaadim mun ñoo ñàkk wax ci moom dañuy wax ci moom dañuy sa dañuy di wax ci moom yàlla xam na loolu parce que man moom man defal na ma lépp man man laa wax de defal na ma lépp waaw yàlla xam na ko hmm. Hmm. non bis bari na coow nii rumeur am na nii dara mais buñ bëree ba pare hmm. comme lawoon moo fi jaar ak yàlla général Malika ak Moussa Malika ci yam man benn bis dara déranger wu ma benn adversaire déranger wu ma parce que yëgu ma fi métti man yëgu lu métti yëgu fi métti man daal li may li may wax mooy na waa Kayar def la ndànk fa la ñu def lu ko raw waaw. mu ngi bëreeg nda moom mi ngi bëreeg ndaanaan moom mi ngi bëreeg ndaanaan di bëreeg ku am ci géew di bëreeg ku ragalul dara di bëreeg ku mën a bëre waxaale loolu tamit di bëreeg ku am sañ ci géew di bëreeg ku mën a bëre di bëreeg ku ragalul dara kon neex na waaw ndax ñaar ñi ragalul moom bu ndajee yàlla du fa téye kenn. mën a dayoo jam tëri moo toll noonu. Ah, waaw dayoo fi mu toll nii adversaire bu mu am coow li bari. Hmm. parce que ku fi ñëpp ku fi ñëpp ku fi koo am il faut coow li bari. détails bari wax li wax ji bari. waaw ah, parce que général bokk na a naqare utal <coughs> la même chose tey la ko rek koy santaat bu baax a baax hmm. parce que donte maa ko may sant ci làmb mako may sant ndax maa ko maa ko lu ma beure mako ko met ñu ma beurel mako lu ma daan gën ko neewi defet kon mako may sant ci lamb tar tok nak tokay bu metti motax lamb bo boole ñu ma jël ko jambar la gaynde la ñi nangul nako champion kon bu ñu lamb bolé dama koy sant bu baax di ko gërëm bu baax ndax su ko neexon tay bu ñu ko joxee avance bu bañ ko jël kon nak ñu koy santat bu baax baax mom diko ñaanal jamm mais amna combat amna combat mo kay mbokam non man garaawul man tenket <laughs> maa ngi nii di xàpp di belli ah. man tënket de man garaawul. man arène nationale loo fekk loo fekk loo fekk ci géew ba jël. fekk ci géew bi jël. waaw loo fekk jël garaawul. Euh, xeex ak ñoom agressé waaw euh, li may waxaat daal mooy. signature ak moom yomb na trop trop trop trop. da koy gis dayoo di ko xeeb gis ko ci tolluwaayam di ko xeeb. waaw waaw mais bis bu ñaari arbitre di génnee. mu des kenn ci biir. ñu ne ndax pare ngeen. boo ko boo ko xewoon ni ko respecté. général Malika keneen na ci yam ñëpp laa wax. waxuma kii ak kële. dama ne képp ku ma xeeb. man laa wax ku ma xeeb. ci signature ak ci wax. bu desee ba arbitre ni pare ah. nga. di nga respecté. ku la xeeb daal ku la xeeb daal arbitre daal sifleegul. waaw arbitre sifleegul ma. Ah. voilà waaw. li mu laaj dama koy def man. Hmm. parce que amul naa li ma indi naan lii ak lee di xel yaar. man li mu laaj. a woo ci xeex ak la ci woowee doo ko ci wuyu si. man làmb lépp laay pare. Hmm. bu fekkee mas ngaa seetaan benn mbër bu jàpp jam teeri moom ci bëre daan ko jël bëre bu fekkee mas ko seetaan nga wax moom wala génne ko. man dama am ndoxtu bëre. bëre te bërekat dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ku mën a bëri mooy feeñal bëreem. Mm. te man egg saa egg saa jàmm. Mm. Mm-hmm. lu mu laaj rek loolu moom si instant bi la ay wax. Mm. kon bu gaa xoolal nga war a ndax da nga ndax bu fekkee da nga bëgg a tukki wala nga dem Dubaay foofu mais il faut di waxtaan ak instant rek. waaw suñu mi kese. Ah. su ma neexoon tey tey du ma France Sénégal. waaw lépp ci keneen de waaw waaw. mais waaw nanu yàlla may jàmm bu baax a baax ñu préparé ko comme naa préparé combat yi buñ ñëwee nag ci kàttanu yàlla yàlla may ñu ndam. Mm. sedd guy. <laughs> moom moom day wër ji ay diin. ay diin. ay di dagg ay falaaw lu ne. E? man damaa dëkk ak ay diin. E? diin dama accompagner. da di yeewu damay xëy diin ba damay xëy diin ba ma neex dem. E? man dagguma diin yor ma jaas di damay xëy. Ah, diin damay xëy diin ba neex dem man yëre may jaasi mbaam yëre ay rajo dara du ay diin man damay xëy diin ba neex dem waaw te xamoo seen diin yooyu yenn saa damay ñëw di fa entraînement te yow ko sax ñoom diin di ma teewaan pël yooyu da koy ñëw may wax nii rek bi jàll ñu naa fa ñaari yoon diin diin diin diin moom ñu dagg noonu dugg naa fa ñaari yoon deux fois di bëggee sama supporter yi nekk Malika yëpp eh, eh, nag sama mafia bi nekk Malika yëpp maa leen di bëggee bu baax a baax a baax a baax di nuyu sëñ Mor Malika bu baax a baax di ko ñaanal jàmm bu baax a baax a baax di nuyu sama gars yi nekk Malika yëpp ah. sëñ Mor na pare rek général pare rek ah. ne combat dafa war a neex dafa war a tàng ba pare dafa war a doon war a doon meilleur combat de année meilleur laa la war a doon sama diggante général Malika ah moom moo tax ma ne da ñu pare na pare. Hmm. mu doon meilleur combat de année. Ah. ndax jamteeri ay mbiram dara yomb ci. dara yomb seen xaalis dinaa ci yow ngi lay siyaar. ñu ngi lay siyaar bu baax. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. waaw ñu ngi sant yàlla rek di julli ci Yonent bi di sant Serigne Touba ndax amuñu bis bu dul bisu bisu bisu màggal Touba maanaam bis bi ñu am bi gën a rëy ci àdduna bisub Serigne Touba bi moo tax képp ku ñu ci fekk nag sunu mbokk nga sunu nit maanaam ndax Serigne Touba dafa ne nan leen ko ci santale suñu borom donte moom genn cantam moo ëpp doole cant mbindeef yëpp waaye da nan leen ko si dafa woo yëpp ngir ñu santale suñu borom moo sant googu noonu képp ku ko def. maanaam jàpp nañ ne li nga bëgg da nga ko am te sëñ Tuubaa ko defal waaw. Mhm. Mhm. Mhm. nga moom maanaam làmb ji ci Sénégal ñëpp mbëri ci senegal yëpp maanaam kum ciy bëreel ñàkk nga ma. kum ciy waaw. non kum ciy bëreel rek ñàkk nga ma. Hmm, parce que maanaam sama xarit la. xam nga man Kayar laa nekkoon waaw doon ndaw sama baay di ma teg ci yoon maanaam Sénégal gépp xam sama wajur di ma teg ci yoon ma nekk fa muy bëri di bëri mbapat ñu xamante am kóllëre gu yàgg ba tey gii daanaka kër gi waa Kayar ñoo fépp waaw gis nga ñoom booy Kayar mii ñoom suñ Pape Demba ñu naan ko booy Kayar ñoom ñëpp nga xamante ni dal bi nun ci war a doxee dañ ko ciy doxe taxawu ci maanaam bu ñëwee daanaka liñ doon dañ koy dañ koy jël teg ko ne ngir nekk ngir nekk ci liggéey bi sëñ Tuubaa bi te loolu rek am solo waaye moom mii dama bëgg nga xam ne maanaam sama nit la sama xarit la waaw maanaam képp kum am man ngay dajal waaw. ah am di coow nga xam te ni mbiram dara sell loxo bi yàlla moo kawee loxo yëpp kaw. te bu boobaa yàlla na suñu borom dogal ñu yëkkati loo xam ca kaw te am nañ ci rafet njort am nañ ci rafet njort bu wér ñu ngi koy ñaan nag ci bisub Serigne Touba bii maanaam Serigne Touba maanaam ko ba mu am ca ndam ni mu ko bëggee hmm. mu amee ca noonu ndam. ma maanaam góor bala ñoo xam ne góor la mu am lu jafe bu boobaa sax ci leen maanaam ci leen maanaam gën a taxawe waaw góor doon góor dëgg man bu ma sañoon combat bi gën a metti chaque jour moom lañ koy jox waaye bu ñëwee ci géew bi mu gën a yomb ci combat yëpp hmm. man loolu laay bëgg ñu waaw hmm. hmm. waaw xam nga xam nga kii moom xam nga du nekk sax di wax moom lu bari maanaam yëf yàggatul mi ngi suñ kanam yàlla miy suturaale yàlla na ko suturaal te suñ borom dana ko suturaal waaw yëf yi moom yàggatul ñi ngi ñaan suñu borom dal mu sutural ko tayit lu mu nekk ci aduna ñi ngi ci waaw sa bu jëlé combat lu mu nekk rek ñi ngi ci waaw. xam nga man daanaka du ma faral di wax ci kenn damay wax rek ci ki nga xamante ni moom laa moom waaw waaw faral di wax ci kenn mom dal xamna ni dal ñi ngi ñaan sëñ Tuubaa dal suñu borom may ko ndam ci limu mu jublu te ndam la sedd guy waaw. gis bi gis gis bi. bi ma ñëwee ci koñ bi biir kër gi ku ne naan ma def gis kuréel kuréel kuréel lan la xam nga ñun xam nga ñun maanaam lii dañ koo donn ci suñu baay ci ñi am xam-xamatim te nga xam ne am na ni xam-xam xam na ne ne lii luñ donn la xam na ne doon xam la maanaam muy Sénégal gii di Afrique fii ba abome ca bene maanaam xam xam nañ ñu du lu ñuy làmbatu ñi am xam-xam ci dëkk bii ñu nekkatim nga xam ne suñu borom may na leen xam-xam ñuy borom xam-xam xam nañu maanaam duñ génn sa bi benn yoon ñi am xam-xam ci dëkk bi di la wax naa ne kii lii wala laa dan lay wax dana dana dana xamal kii mooy kan waaw loolu nag yàllaa ko def ñu nàmpante ko ci suñuy wajur maanaam di ko dund di ko dox ba fii ñu toll waaw ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan tawfeexi Serigne Touba yàlla na dotti ko ci kaw adduna bi yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw. waaw doole siyaar. <laughs> waaye sant sëriñ bi rek. waaw da am nanu. waaw parce que Kayaar la ndëkk ñun bu kenn dee bëre ñëppay bëre. waaw muy mag ñeek ñu ne Europe ak fi mu toll nii. boo seetaanee TikTok bi sax di nga xam ni Kayaar ñooy bëre. waaw combat bi daa tombeek sunu borom dogal daanaka ndaw ñi. gëna bëggaat lamb sax. Ah, waaw combat bi ni parce que jam mom dama ka xam man. parce que dañu and ci lamb bi lamb mhm. ma fekk ma ma fekk kereeram lepp dama ka fekk. Mhm. xam ka maam da bëreegul sax mom de de jam bëreegul. Hmm. de ah, jam la jam ci combat bu day war rek non combat la parce que li tax combat la. Hmm. général Malika ñun dañ koy sante di ko gërëm. Ah, parce que jam dañ ko fay bayyi ci règlement lamb jam la won ak ñom Balla jam la won ak ñom modlo parce que ñoñu li jam daan daanuñu ko mhm. loolu moo non règlement bi bu dul ñom ñoom saakees ñii mhm. ay boy ñaa mais gis nga dañuy teggi kenn ku ci ne ñi ami mbokk mhm. ta xam nga dañ fee teggi sa way mais bu dé lamb mo len mo mo ëpp victoire ah. moo leen dàq bëre te mbeureum gox la ñoñu mbeuri koñ lan de ki mbeureum tundu la peccu la waaw te ku xam tund jandeer ku ko xam laax de doo sori ci mbiram fala falang dëkk waaw fala falang dëkk mbay jaja fala dëkk asan Baye Fall yi fala dëkk ñoom Baye Moor hmm. fala dëkk waaw ñoom hmm. Majob fala dëkk waaw ñoo ñëpp fala dëkk Lébidoor fala dëkk Boy Kayaar mi di waxee fala dëkk jàmmi nag moom maanaam day kenn si tund woowu maanaam ñëpp dañoo fëttiku topp si ginnaaw ki man làmb dama noonu sa duma ma si waxati mais moom bu amee làmb ñun dañoo am làmb ñun maanaam ñëppay bëre te maanaam bu bis baa di nga xam ni ñëppay bëre parce que dañoo bëgg moom mu indil ñu roi des arènes bi ah. waaw bu wér parce que bu dee bëree moom man nag bu dee xeex am naka bu dee fit am naka bu dee ginnaaw hmm. ko xam tund wa te sëñ Xaadim mii ku ne xam na ni moom jam léppam la xam nga daa am ñoom dañuy tiit am sëriñ am ñoom dañuy tiit dégg sëriñ dem fa mais ñun dañoo am sëriñ avant ñoom am ñoo ñoo tiit avant ñoo am combat ñun sëriñ yaa ngi fa boo ñëwee Kayaar lay hmm. daan mbërëng fa boo ñëwee fii sëñ Xaadim mu fi te day daan mbër hmm. waaw te nag suñuy secret duñ ko wax waaye mbar na mbari dégg daal yi Kayaar lañ ko Kayaar lañ ko jëlee waaw am na combat bu rëy hmm. dëkk sax si booru ndox mi moo tax ñu respecté waale parce que ñun ñoo moom géej fukki penc ak ñaar yi ngay dégg dëkk lébi yëpp ñu ngi si ginnaaw sawaay mi waaw moom nag cër bi ñu ko jox mooy malika gi mu dëkkaale noonu ndax dañoo xaw a jege waaw dañ koy jox cër ngeen ndoxam géej ma waaw waaw yow ñu ngi lay sant yow it di la gërëm di sant sëñ xaadim ndax boobu ba léegi dañuy lekk ka naan frigo bi lekk yi ndox yi kilim bi kër gi soxna yi ñëpp maanaam danoo mel ni daal rayal daan di jox 17 xar rayal ñu ko ndekkee leen ko ñu mis bi mu jël mu ne uti leen buuse ñu jëli ko kayaar andi mooy lakk waaw ñii di mis bi fii ñii di dibi maanaam yow da ngay dema ba moom yow da da ngay sax xeeb sëg taalibe moo tax moom yàlla na ko Serigne Touba taxaw sëñ Xaadim si barke màggal gi yàlla na Serigne Touba yokk xéewalam si barke màggal gi yàlla na Serigne Touba jox ndam suñu mbër mii te nag maanaam naka gaay jàppale parce que dañ kaa war a jëndal oto kii lépp da ngaa war a yomb parce que da ngaa liggéey waaw autorité yi dañ damaa bëgg ñu jàppale ko maa ngi lancé appel waa tund jander ñi nga xam ne autorité leen fa nekk fa bi si njëkk mooy fi ñu dëkk muy monsieur le maire Alioune Ndoye jàppale sama waa ji yi bi si topp mooy Alsane Ndoye bu jandeer bi si topp mooy monsieur le maire Kër Moussa ñëpp nañ jàppale sawaay mii parce que ñoom amuñu lu dul moom ak autorité yi fa ne ñëpp ñi ma tudd seen tur ñu xam ne amuñu lu dul kayaar ñu génn kaar yi jox ko mu lekk ba rek damaa bëgg chaque jour mu lekk yàpp dix mille ba kere combat ba waaw mais ndam li moom non loolu moom duñ siy wax parce que mbiri suñu borom la waaye moom bu soobee yàlla dinañ ko fi waxaat fii incha allahu allah waaw di sant Sëriñ Tuubaa rek Boy Kayar mi ngi ñoo def ñoo defandoo lépp kenn tax koo bëre moom yoo ngi nii igri Fass la nekkoon bi Fass di Fass kenn dàq koo bëre. secrétaire yi day jëfe ndigal rek ndax champion la. Mhm. ñu doon boppatandoo mu jël ay drapeau comme ñun di def di bëri arène mhm. mais sëriñ ay ay ñoo teel a bi ci moom mu bàyyi ko te bi nga bàyyi rëccu ko. Mhm. ndax liñ bëggoon ci moom mu ngi ci moom. am na taalibe te jàmbaar la waaw. sëriñ xaalis mi nag dañ koy ñaanal daal rek di ko ñaanal yokk ñaanal yokk ba yokk. lépp lu mën ren bu déwénee yàlla mën lu ko te nag lépp loo xam ne am nga ko yàlla defal na la ko mm-hmm. eh, yàlla na doon lu la jik parce que àdduna loolu la nit ki daam dara parce que du du ko jik mais nag jik bu la mm-hmm. jigee rek mm-hmm. yokk mais bu la jigul mën na fa taxaw kon lépp loo am rek ren bu yokkoo yàlla la jik loo man tamit ci màggal gi di ko def yàlla nay yokk parce que mag bi Sëñ Tuubaa lu ci waay def lu nekk maam doyul ndax mënuñu koo fay ci dara xanaa kay day dem rek ba keroog ñu fi jóge mais mënuñu koo fay kon suñ Xaadim yàlla na yàlla kàttanam yokk la ba yokk te it ni ñuy taxaw ñu du ko fàtte mu ngi taxaw ci biir ci biti waa Kayra ngi fi de ñu ngi si biir fii manqué wuñ dara amul luñ manqué yàlla xam na ko man suñu kër ngi nii mais dama bàyyi lépp ndax moom yàlla xam na ko sama kër papa yi fii mais dama bàyyi lépp ndax moom kon jar na ko jar na sa dugub mais di woowaat supporter yëpp nag surtout waa diaspora bi ñu xam ñu wàññi wax ji tey yokku jëf ji kon ma koy waxee te am na combat yoo xam wax la mais am na combat yoo xam ne combat jëf la man nag samay wax bëriwul mhm. ndax bu jëf teewee danaa wax ci bëri amatul sens te man am na journée xam ne bu bëgg dërmalee mm. li may wax li may diggéen ci média sax du bari parce que la may nar ak la may ak li ne ci man mooy tax ñu bëri dama koy wax da ngaa ragal média da ngaa ragal média fekk na booba mhm. maanaam jëf daal bu teewee wax ji pour man waratu la bëri kon nag tunu jendeer képp koo xam ne yaa ngi yaa ngi yor deretu jendeer mm. ak dërëtu lébu bi combat bi ñu la ci wo nga japp ci bu baax ci biir ci biti na wa Kaar wañi wax ji di wo sun autorité yi parce que mbeuri fi gis nga yépp bo demee isbu isaat bu lamb amé dimanche mm. ñepp a gaare oto ci bu isaat bi di wacc di wacc seen auto yu rafet mm-hmm. seen maire leen ko may ak seen autorité ñun bu démé dacia la ni luyee wala ba nga dem sa fekk lamb ja jeex te amana ñun luñ fi def mm. sax ñooñu defuñu ko fi te bo ni bo ni fi won ñuk tunu jener dem dem bul féete fa maa ngi dem Dakar féete fa gis ñu la jàppale gis ñu la taxaw mais boobaa sa waa tund looy di ko dégg kon nag bu ñu bàyyee lépp resté foofu ngir gox bi ngir tund bi ñun tamit li moom ngir yàlla leer nañu ko delloo jàppale ñu bu ñu jàppale amul lu mën tam amul lu mën lu mën tam ci làmb mais soo gisee gars yi di tukki di daw di def di muy métti maanaam dañoo amul jàppale nanu jàppale nanu gën a yokk jàppale surtout na ci combat bi lañ ko soxlaa hmm. bi saa yu li des ñoom buñ tiit buñ ragal leneen garaawul barke Serigne Touba dinaa ko gérer lu mu laaj dama koy def barke Serigne Touba mais nanu jàppale uh-huh. maire combat war nañ cee war nañ cee tukki uh-huh. war na am oto yoo xam ne yu ndox suñuy voyage te muñ si dara uh-huh. sunu moyen la ñuy préparé combat bi nii ba fu mu yem ñu toog kon li laay war a suuli jàppale leen ñu di santaat ñëpp nag di sant sama papa bu baax a baax sama yaay bu baax di leen ñaanal jàmm ak taw di nuy suñu famille bi yëpp ah. yëpp yëpp di nuyu waa waa tund bi yëpp ah. kajoor bi yëpp waaw di ziar ñëpp kullu kuy bëgg jamteer rek maa lay ziar di wax nag lépp lu ma fi wax bu doonee erreur ñu ngi koy jéglu bu baax te xam ne doomu aadama matul waaw di bëgg waat ñëpp daal di waat waatuñu jëndeer di waat waatuñu jëndeer jërëjëf Serigne Touba